internet dal leen jàmm ci Dakar Buzz point net ak Dakar Buzz TV comme ni ñu koy defee ci émission bu mag bi nga xam ne moom mooy man ak moom man ak moom nag tey dafa am gan gu màgg a màgg a màgg gan goo xamante ni nii sénégalais yëpp ko bëgg vi li nga xamante ni moom mooy tey jii moom mooy discipline bi moom mooy savoir parler bi surtout l'intellectuel ah ak la chanteuse <laughs> moo tey nag ki ñu dalal moom mooy la fi de notre père nous tous Ouza kon Adiouza la ñu dalal Adiouza maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la dalal ci Dakar Buzz. kontaan naa torop Ndoye mm-hmm. Mm-hmm. di rafetlu bu baax euh, invitation bi ak ñëw bi ngeen fi ñëw seen teewaay mm-hmm. kontaan naa ci di nuyu tamit internetu Dakar Buzz di nuyu fans yi fépp fu ñu mën mënti nekk ci àdduna nuyu naa ñëpp <laughs> jaajëf balaa may sori ci waxtaan bi il faut ma gaare bis bi ñu dugg ci non da ngay <laughs> gaare ñu dem <laughs> voilà ñu dugg ci bis bi ñu dem ñu dem quoi foofu laa koy njëkkee sax moom mooy sa single bi nga xam ne actuellement mu ngi def yoonam quoi donc single bi euh, ba nga ko jënneeg léegi euh, yan retour nga ci am ak ak ban analyse nga ciy def. ah waaw single boobu nag euh, balaa ma koy génnee quand même toogaat naa lu yàgg mm-hmm. sénégalais yi déggatuñu. comme d'habitude nañ la dégg waay. voilà gëj naa gëj naa génne. Mm-hmm. mais du ma def lu dul gërëm lu public sénégalais bi nga xam ne damay léeg-léeg damay absenté lu yàgg. Mm-hmm. mais saa yu ma génnee waatee son rek tu vois que les fans ñëwaat public bi aussi les mélomanes. Mhm. tout le monde est là tout le monde me soutient soutient mhm. donc maa leen di remercier aussi ci loyauté boobu. Mhm. ci ci gëm biñ ma gëm. parce que tam c'est pas facile nga am sa artiste léeg-léeg nga toog lu yàgg doo ko dégg. donc di remercier rek ñëpp ñi ci jàpp euh, di wax na nag bus bi pour dire vrai euh, son la boo xam ne nii. ñu bëri dañ may woo di ma ne c'est une histoire que j'ai vécu mm-hmm. maag sama jëkkër ci biis la ñu xamante marie nañ mm-hmm. donc man dama ko doon woy noonu rek genre coup de foudre Malick moom nopp na ci bus ba taay waaji wàcc gel bi wàcc bàyyi ko <laughs> gel wàcc bàyyi ko man sama ci wéy bi loolu laa loolu laa def scénario voilà yaa ngi Malick yéen a bokk voilà scénario nga mm-hmm. dugg ci bus bi gis kenn ku la neex mais bus bi c'est pas adéquat pour nga dem ci fekk nit ki wax ak moom xam nga léeg-léeg am na endroit yoo xam dafa critique Mm-hmm. nga gis nit bëgg ko nga viser ko mais munoo jug dem même pour góor je pense que am na endroit yoo xam ne boo fa toogee ñëpp na la jàkk ñëpp di la xool c'est pas évident. Mm-hmm. nga gis lu la neex nga jug dem ci moom. pour euh, pour wax ko foog nga fit tigi non man man rek. man mi yow <laughs> waaw mais bu na Sénégal ñi <laughs> nga man bu doon a man la ci bis ah. bu ma daloon. Ah, non damay dem sukk raamal ko ci bis ñëpp toog di la xool spectacle laa koy may. du ko fàtte bu baax. kon yow artiste nga artiste <laughs> waaw waaw kon kon nga <laughs> loolu nag yàlla may ko ñëpp. Mhm. man nag ci ñu timide ni laa bokk. moo tax ma defee noonu scénario bi. Mhm. def voilà gis nga loo bëgg mais tu rien faire. Mhm. donc coup de foudre la boo xam ne day passer vite fait quoi. coup de foudre la dans le bus. waaw voilà dinañ ñëw nga ci scénario bi nga xamante ne ni moom nga bindee son bi après dinañ ñëw ci scénario. vidéo bi gën ko mhm. yaatal. Mhm. mais balaa ñuy dugg ci vidéo bi en tant que tey lyrics yi. Mhm. non man dama la gis ci son bi noo ngay bandi bandi quoi xoolal di indi ay name dropping di indi xam nga ay punchline xam nga ay métaphore ma ne non mais kii ka la. <laughs> non mais xam nga nag man. Eh? comme ni ma koy waxee damay joob ak ay auteurs yoo xam ne ñu ngi ci milieu hip hop bi. ok ça se voit donc waaw donc boo fasee boo boo bàyyee xel ci sama waxin. di nga xam ne ni nii du waxinu mbalaxmaan par exemple du lyrique su mbalaxmaan mhm. même ci mbalax yi may def mhm. damay dem ci ñiy def hip hop job ak ñoom lyrics si mhm. bu ko defee defee boo déggee lyrics yi rek di nga dégg ay punchline di nga dégg ay métaphore di nga dégg ay rime léeg-léeg nga dégg ci nga for ci ay rime yu neex sax donc loolu du def lu dul euh, gërëm ñi liggéey ak man ku ci demee ni ñoom baxaaw ñoom kurumaan di moori ah, ñoom xumaan kurumaan di moori waaw ñoom xumaan ñoom ñëpp ku ci ah, nekk rek ah. man su ma amee sama benn texte bu ma bind thème bi xam naa kan laa ko ci war a jox ku ci nekk xam naa thème bi su ma ko ko joxee bii dina dina ma arranger dina dina ci gis bu naa ci gis sama mbopp bu baax looloo tax nag may jóob ak ñoom parce que en général nit yi bu ñu déggee son bi dañ ma dañ may wax Adiouza ah, sa son yi les lyriques sont hyper bien travaillés et tout mm-hmm. mais mérite tout le mérite revient à ces gens mm-hmm. dama leen maa ngi leen koy <laughs> buux donc ñoom ñooy liggéey liggéey bi yëpp ba tax lyrics si ku ko dégg mën ci toppaat mhm. day neex a wéyaat après baxaaw baxaaw moom dama koy nuyu de passage sama waa jooju <laughs> ah, dama dem këram benn jour anecdote dëgg la ma ne ko baxaw dégg naa danga mën a bind man ak yow kan moo dàq bind hmm. mu ne ma loolu da koy laaj yàlla mi ñu bind <laughs> ma ne ko dèjà war nga ne ma yaa ma dàq moo la mën moo la mën yàlla mi ñu bind pour pour vous dire talent artistique bi nekk ci moom maintenant scénario vidéo bi mhm. scénario bi c'est c'est très nice mm. donc nga indi ay ay ay pas de danse comme comme d'habitude foofu sax damay yor sama benn doj question boo xam ne dañ ma ko jaay quoi ne ma boo demee laaj ko tout le temps moo tax mu bëgg ay chorégraphie nekk ci biir nit ñi di fecc ma ne ko dinaa leen dinaa leen yóbbul question bi mm. question bi loolu la mooy scénario bi nice na mais lan moo tax tout le temps sa vidéo yi dañ lay gis pratiquement dafa mm. euh, dafa bokk ci sama très loin samay début de carrière ci woy yi ma lancé ñu ngi wax dix ans de carrière déjà mm-hmm. sama premier woy yi ay Nobel ku ci demee ni Madou Sarr mm-hmm. ak yeneen yeneen ak yeneen ak kii la faute à chaque fois cay loofu sàmm mbala mm-hmm. chaque fois dem ay chorégraphie donc bi defe naa bi may ñëw ci euh, musique sénégalaise biñ may révélé loolu nekkoon marque de fabrique Adiouza Adiouza day fecc ak danseuse yi day dugg ci biir chorégraphie yi fecc looloo nekk sama marque de fabrique. Mhm. mais léeg-léeg am na yenn clip nii nii nii par exemple mariage. Mhm. comme j'étais en état j'ai pas pu faire les chorégraphies. Mhm. am na yeneen woy yoo xam ne aussi je me suis naa bàyyi feccikat yi fecc waaw comme yow da jaay affaire américaine. Hmm. affaire rappeuse. mais bi nga nekkee en état mënoo woon a ñëw def clip bi def chorégraphie bi à la Beyoncé génn ko ñëpp gis ko. non loolu da doon metti. clip boobu nga xam ne ndax j'étais essoufflée non essouff essoufflement bi. ok xam nga boo nekkee en état moom c'est pas c'est pas du tout facile. Mhm. Mhm. da gaaw a wu. Mhm. donc aw ma condition bi dama doon gaaw a donc clip bi yëpp dama ko took reposer pare ne gars yi plan serré rek pas de plan large bu ma kenn large. non mënoon nañ koo yaatal nag ba mu yaatu nag afal ko ba mu af. <laughs> may sol yu ngand nag clip boobu yëpp ay yëre yu ngand laa ci sol. ay robe évasé yu taay maam yu baax. <laughs> yoo xam ne ni kenn du sip quoi. Uh-huh. mais tout est bien qui finit bien alhamdulilah. waaw léegi am naa ci doom. Uh-huh. léegi je suis une nekkatuma Adiouza la célibataire. no dinañ si ñëw jarul nga <laughs> kon baax na <laughs> oh, dañuy dañuy balaa ñuy dugg si deuxième uh-huh. partie bi il faut ñu wax. bus bi donc après lyrics yi après vidéo bu nice bi après ñu nag nga indi loo xamante ne mosuñu ko fi gis franchement innovation de taille. Hmm. moom mooy dugg ci biis bi def benn caravane. Hmm. Euh, dem nuyonte ak say fan saafonte ak ñoom. Hmm. inspiration bi déjà nan la nan la la ñëwee. waa xam nga xam nga dama doon gis te am na yeneen innovation yi ñëwaat ci grand théâtre bi. Ah bon. non kooku kooku bàyyil dinaa ci ñëwaat cin li ñu wax dama dama leen di mosol rek <laughs> ne leen man dama bëgg innovation hmm. man lu amul innovation doxuma ci hmm. par exemple euh, booy déglu sama musique hmm. bu baax boo dee melomaan di nga dégg bu baax ne am na ay innovation yu bëri ñu ciy def boo dee melomaan nag la wax di nga dégg innovation yi donc euh, man chaque fois damay bëgg surprendre samay fan damay bëgg surprendre les sénégalais. Mhm. donc di génn fu ma kenn xaarewul mhm. donc bi ñu toogee euh, ñu ne dañuy def grand théâtre caravane bi idée bi mu ngi jóge ci sama benn membre staff. moo toog ne pourquoi pas du ñu def benn caravane caravane bus bi. Mhm. bus bi carrément donc lancer benn jeu concours pour def caravane bus bi donc c'était pour le bus. le single bus bi. mais bi ñu defee caravane boobu gis ne ça a les fan fan bu nekk mooy bëgg nga ñëw ci gooxam et mhm. tout ñu ne ba nañ ko def caravane pour le grand théâtre aussi donc ci la ñu commencé am idée euh, ànd ak bus bi di def caravane di dem seeti fan yi be gox par gox quoi donc di leen seeti et on voit que fait plaisir mhm. les fan son très émus les fans sont très contents dañuy déplacé wu en masse. Mhm. pour ñëw accueillir la. Mhm. donc euh, di ci gërëm rek sama membre staff boobu am idée caravane bi. Mhm. donc pour le grand théâtre ça va continuer jusqu'au 27 décembre. on va aller vers les femmes. non idée bu nice bi moom du bamba dana ah. comme dama koo mere xam naa ne idée yu baax yi moom du moom moo koy jënne quoi. <laughs> da nga xam da nga ko xam. xam naa ko. waaw <laughs> c'est du moom. <laughs> Bamba mënul jënd lu baaxee nii. du moom Bamba du yow <laughs> Basi Bamba maa nga lay nuyu di côté de Thiès maa ngi nuyu waa Thiès benn dëkk ñaari gaar téeméeri problème ak juróom-ñaari benk ñenk maa ngi lay nuyu yéen ñëpp Bamba nuyu naa la à yow maa ngi nuyu waa Thiès waaw. il a de très belles ah, moom la non sama gars dama koy kaañ quoi mais xam naa ne idée yu naa yor na ci ay paquet. yor na ci paquet paquet la ci yor bu la wax bu la toogee rek ba idée la. <laughs> maintenant bilan bi après caravane bi euh, première impression yi nga ci am. du ñàkk aussi ay émission yoo ci dund. waaw waaw quand même quand même euh, man je trouve que yéex naa ko def parce que aller vers les fan mhm. fan yi da dafa di loo xam ne c'est c'est sensible pour ñun artistes parce que nit ki la bëgg nit ki toog fu foo nekkul yow. Mhm. mu lay défendre di wax ci yow di défendre sa produit parce que fan de défendre sa produit. Mhm. xam nga man damay défendre sama produit sur scène. ci médias yi nii damay défendre sama produit. mais fan bi kenn fayu ko dara. day toog di wax ci yow di la defal promo. Mm. naan sama artiste nii sama artiste nai sama artiste moo fi mën sama artiste day dem fële. donc euh, di leen gërëm. di mm. gërëm fan yi donc plus may dugg en contact ak fan yi di nekk ak ñoom je comprends que euh, seen sincérité au fait. Mm-hmm. seen sincérité. Mm-hmm. seen soutien. Mm-hmm. ni ñu sonnee ñoom actuellement pour te dire fan si ñoom a gën a sonn ci organisation Grand Théâtre ñoom ñooy dem fu ne. di di di wër ñit yi di leen sensibiliser Adiouza des grands théâtres du ngeen jënd ticket donc pour te dire comme comment ils sont mobilisés. Mhm. donc du ma def lu dul remercier fans yi delloo njukkal delloo leen njukkal loolu nag maa ngi ko xam ci balaat bi plus may nekk ak ñoom plus may gis coono bi ñuy daj. Mhm. ci man awma seen fay. fans yi bu ñu dañuy indiwaat bis bi quoi foofu ñu. faw ñu indiwaat ko ñu gaare ko ñu pose non dama ci daanu leer bi ma la wooyee lu ma la njëkk wax <laughs> nee naa la bis bi dama ko bëgg sama biir xol parce que man dama bëgg lyrics quoi ah, lyrics bu jaar yoon man damay daanu ci bind ah. cest à xam nga ku nekk ak sa charme ci musique ñii musique bi nañ nañ xam rythme du moo tax je suis un raciste musical su ma xamul làkk bi ngay wax du ma la déglu parce que man lyrics ah yi laay bardé waaw <laughs> man musique bi lu mu neex neex te lyrics bi dugg ma sa sa waaw mooy mooy loolu quoi donc voilà bu ñu wàccee bu ñu wàccee bus bi nag <laughs> uh-huh. xam nga damay def benn page de pub déglu mu baax parce que après voilà mooy loolu <laughs> lii ma sol nii 2M moo ma ko jox xam nga 2M ah, ñoo ma ñoo ma jox lii noo ko noo ko gisee bëggal nga ci Moussé ah? ah. waaw nice dañuy defar ay costume ah yu yu góor ak yu jigéen actuellement uh-huh. donc unisexe lay def. Uh-huh. donc haute couture lay def day def uh-huh. ay robe yu baax. donc ak sedd bi nii nii nii nii décembre bi nii nii jaar fa yàgg Moussé. incha allah ngeen ngeen xool tout am lu muy def donc mu ngi rond point Yoff. donc bu ngeen demee di ngeen fekk foofu Mamor numéro téléphone am dina affiché en bas de l' écran moom moo jaaraat fii nga xamante ne ni après bu Akhlou Brick bi nga xam ne ñëpp ñu ngi doon coow tenue bi donc bii la jénnaat man fii tey ci ci Adiouza bi donc c' est très ah léegi nag dafa am lu ma lay proposé. Mm-hmm. tuwem mm-hmm. dama bëgg grand théâtre bi mm-hmm. mu jox la benn tenue bu extraordinaire yow nangul rek. maam moom def ko extraordinaire extra dama wóolu sama waay <laughs> bu extraordinaire. man nee naa leen grand théâtre bi du ma fa sol sol sol normal. lu extraterrestre rek laay sol. ngay sol yëpp extraterrestre. solu yoo xam ne amagul. mosoo ko gis waxal tuwem dénk naa la <laughs> benn solu bu amagul. wax kon kon dénk naa la benn solu extraterrestre bu amagul vrai aar quoi lay wër aar carrément aar. jeex na après ñu dem ci moom maam <laughs> Mamor mu jox la benn ci grand théâtre boo xamante ni aar lay doon. kon jeex na donc bu ñu.